على من عليها ولا سوسدي لو كل من هدايا مديم على من عليها ولا سوسدي لو ñu baax أعوذ بالله بسم الله وما توفيقي إلا بالله رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون والصلاة والسلام على من نبي بعده سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ناصر الحق بالحق وعلى آله وأصحابه أجمعين asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi ñu dellu siwaat seen jataay bii di xam sa diine fii ci ëtt soxna yu baax yi ginnaaw bi nu sante sunu borom subhaanahu wa taala musuloo ci noon bu mag boobu laanatullahi alayhi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen jox seen wàccuwaay ci bàyyi xel di leen sant ci bàyyi xel ngeen di bàyyi xel seen jataay bii di xam sa diine fii ci ëtt soxna yu baax tey nag ñu ànd ak yéen ci ki nga xamante ne ni ilimaan da koo raw naka la mën a indee julli yooyu nga xam ne naka la mën a faye li nga xam ne moom la ko ilimaan rawee ci biir julli gi ginnaaw bi ñu àndeek yéen ci jullig jumaa nag kan la ak naka lañ koy defee kon tey fas yéene ànd ak yéen ki nga xam ne ilimaan da ci biir julli gi nan la mën a indee julli loolu ilimaan raw ko ci biir julli gi mu wax la ne bu fekkente ni bi ngay dab ilimaan ci daa sëgg ci rukkoo ba waaye ta muy siggi ci rukkoo ba yow fek nga ko ci bir rukkoo ba bu boba rakka bobu jot nga ko waye bu fekke bi ngay ex ci dangaa fekk ilimaan siggi ba kon rakka bobu rawna lah. la ndax waxon nañ len kat ci jotaaye passé bañuy jangal as-salat ab rakka fan lay faso muy ci kon bo fekke iliman ci rukkoo nga rukkoo and ak mom kon and ga ak mom ben rakka waye fekke bi ngay ex di and ak iliman ci julli ga dafa fek iliman siggi ci ba ton rakka boobu raw na la bu la yilimaan rawé boy fay te fekk am nga ci julli ga ñaari rakka kon bojuge, joggé da nga wax allahu akbar bo ci mé ben wala ñett nak do wax allahu akbar bo ci amul lu raka rakka itam da nga wax allahu akbar ko xam dafa fekk yiliman ci rakka te mu xam bu doxé ba ag ca sapé sa dana fekk mu suggi ci rukko ba kon su boba bu raka rakka bu mujju ba day armal famu fa mu toll lay armale tey dox bu yilimaan rukkoo mu rukkoo kuy te boole ko caag di dukkat ba àgg ca sàppe sax maanaam bu fekkee dangaa ñëw ci julli gi fekk ilimaan di rukkoo te nga bëgg ànd bëgg bokk ca rakka boobu dangay daal di armal rek tey dox te ca fa nga toll fa nga toll fekk yow eggagoo ca sàppe sax ngay dox di dukkat dukkat suñ ko waxee mooy nga mel ni kuy waaxu waaxu mu bar rek ba egg ci sàppe sax mom ak mom bu selmalé mu fay la ko rawon bu raké féké raka bu nak kon na dox rek ba àgg ca sàppe sa kofek mu ko fék mu armal te and ak mom ba mu jeex mu fay ndegam imam raw nako raka bu mu andul ak mom ci rukkoo ba nag booba ràkkaa raw nako kon sa so andul ak mom ci raka rek raka bobu dalay daal raw lol motax raka bu mu ko fék bu dé bu mujj bu ragalé mu rukkoo wala sa sax kon famu ko fék mu daldi armal te wuti sàppe sa bu ko fekkee mu rug mu aramal te rug te dukkat wuti sàppe sa na ma la ko waxe woon bu yilimaan siggee ca rukkoo ba te àggul ca sàppe sa nag kon na taxaw fi yilimaan siggee te ànd ak moom bu ko defee su fekkee rakka boobu du bu mujj ba kon bu yilimaan taxawaatee ci beneen rakka dana ca saña dox ba àgg ca sàppe sa àggaleeg julleem waaye sigg ci ab rukkoo ba noppi di doxaat daal moom dañ koo sib loolu nanguwuñu ko lala ilimaan euh, euh, rawee nag boo ko dee fay bu dee jullig biral la maanaam jullig biral waxoon nañ leen mooy wax ca kaw bu fekkee ilimaan lim la rawee jullig biral la boo koy fay da ngay biral waaye bu fekkee jullig yellu la dangay ngay soo koy fay yellu itam waxoon nañ leen mooy ngay jul wax ndànk ne ko iliman defe woon rek budé julik biral la bokoy fay lila la iliman rawe woon boo fay da ngay biral bu julik jullig yalu la dang koy yalu comme ni ko iliman defe rek bu féké iliman sigi ci ba rakam bu mujju su sigi ci rakam bu mujju ba da nga googa julli bokko ci waye du té da ngay and ak mom la ca dess bu selmalé nga jog kabar julli julli bu fekkee yow bi ngay egsi ci julli gi da nga fek eliman sigi ci ruko ba yow kon julli goga bokko ci waye da nga and ak eliman la def ci julli ga eliman silime selmale nak yow nga daal juk jug kabar julli julli ga mo xam tisbaar wala takusan wala timis wala ge waye bu ilimaan dee sujjóot qabla wala baada do and ak mom ci sujjóot ga ndax yow mom and ak mom ci julli ga ben raka waye bu fekke and nga ak mom ci julli ga donte ab la sax ba sujjóot bu dee sujjóot xam la da daal di sujjóot ànd ak moom door a jug àggali sa julli waaye bu fekkee day sujjóot baax da yow da ngay jug àggali sa julli boo sëlmalee ba noppi doora sujjóot baax da ndax kat laataa ngay sëlmal la waaye baax da ginnaaw boo sëlmalee ba noppi la ku amee bari julli nag war na koo fay na mu ko faate woon su fekkee da nga am ay bari julli ni nga ko faate woon rek maanaam julli ga nan nan nam la rawee woon rek nan noon nga koy fayee bu dee jullik dox la jullik dox suñ ko waxee mooy tey mu mel ni masalan nga doon tukki am ay bori julli bori julli yooyu fekkee yow da ngaa wàññi woon da doon tukki tukki boo xam ne da ngaa wàññi woon say julli julli yooyu nanga nga ko ko faate woon noonu nga koy faye tey bu fekkente ne lu mel ni ñeenti rakkaa la woon nga wàññi woon ñaar ya ñaar ya rek ngay fay kon nanga ko lebee woon rek noonu nga koy fayee bu dee jullik teew ngay fay itam na nga ko lebee woon noon na nga ko faate woon noonu nga koy fay jullik teew mooy suñ ko waxee demoo fenn waaye waxtu julli wa faat nga ko ba amee bor kon amut wàññi amut dara na ko lebee woon rek noonu nga koy fayee bu waxtu wa teewee te say bor ëpp ñeenti rakka tey jii masalan nga amoon ay bori julli waaye la amoon ci ay bor mat na ñeenti julli wala ñetti julli kon te waxtu julli teew kon julli yooyu weesu woon moom ngay fay ba noppi dooru julli waxtu wi teew waaye bu fekkee la nga am ci ay buri julli mat na juróomi julli bu boobaa ju bu boobaa da ngay julli waxtu wi teew ba noppi door a fay la woon kon bu fekkee julli mat na mat na ñeent wala ñett waaye ëpp ko bu boobaa da fay li nga xam ne weesu na ba noppi door a julli li bu fekkente ni mat na juróomi julli bu boobaa da ngay teew ba noppi door a fay bor ya ko fàtte li mu bor bi mu am ciy julli day fay la mu lim boo xam ne da koy wóor ne lii moom mat na wala mu ëpp ko waaye manqueetul donte bari julli dafa yàgg lool ba neexatul a jàpp neexatul a xam xalaat na xalaat waaye xamatul donte ay at la du te da koy fay ndax julli moom du la wàcc mukk ba ba ngay faatu comme nañ leen ko waxee woon rek kon soo amee bari julli fekk fayoo ko rek du la wàcc kon donte ay at la ba xamatoo ñaata bori julli la terewul dang koy fay nim koy fayé nak moy da ngay fay bam mu wóor na la ne nga amone ci ay bori julli mom légui mang day ëpp wala matna waye mang manqué tut ku amé bori julli itam du saña a naafila safa wéetar su fekkee da nga am ay bori julli amo sañ sañu naafila xana nga naafila ak safa mom may nañ la nga naafila ko wala julli ayet muy korita wala tabaski yo nga xamné ay naafila itam may nañ la nga naafile ko wala jullik baaw naan jullik baaw naan suñ ko waxee mooy comme tey ji yàlla si taw a taw nit ñi di julli di ñaan suñu borom subhanahu wa taala ngir mu wàcc ab taw loolu la ñuy wax jullik baaw naan wala lu mel ni jant bi muuru wala weer wi maanaam li ñuy wax jàppum jant wala jàppum weer nit ñi dem ci dinyan, yi di julli di ñaan loolu sañ may nañ la nga nga, nga ko waaye dafa dafa warul ci mun a kàllaf sax muy doyadal bori julli wala muy sàggane bori julli loolu daganul ci mu kàllaf ku amee ngànt lu ko tee mën a julli nag saa su ngànt la dañee war na mu daal di koy fay ci waxtu mu doon waaye naafila nag te dañ koy aaye ginnaaw tàkkusaan kon daganul ginnaaw tàkku tàkkusaan ngay naafila walla ginnaaw jullik suba ba fekk jant bi di fenk tamit aaye nañ ku fa naafile ku juum ci julli bu fekkee dafa wàññi kon bu taayaa bay bëgg sëlmal foofa du sëlmal waaye day daal defaat yeneen ñaari sujjóot taayawaat door a sëlmal lool la ñuy war sujudu xabla sujudu xabla nag ki koy def mooy ki nga xam ne dafa fàtte dara ci julli gi waaye laataa muy sëlmal xam na ne kat moom mi am na lu mu fàtte ci julli gi bu taaya ba taaya jeex boobaa day daal di defaat yeneen ñaari sujjóot door a sëlmal loolu mooy xabla ki mu war nag mooy ki nga xam ne dafa wàññi waaye ki nga xam bu fekkee danga nga yokk ca julli ga dara da ngay sujjo boo boo balaa ngay sujjoot da ngay bàyyi ba sëlmal nga xam ne taaya nga sa taaya ba mu jeex nga sëlmal daal di indiwaat yeneen ñaari euh, sujjoot di taayawaat daal di sëlmal loolu la ñuy wax ba'da salaam ba'da salaam itam ki mu war mooy ki nga xam ne dafa yokk dara ci julli gi kooku day bàyyi ba nga xamante ne ni sëlmal na mu daal di indi sujjoot boobee di ba'da salaam ki nga xamante ne itam dafa boole yokk ak wàññi. maanaam ci biir julli gi yokk wàññi nga ci dara waaye itam yokkaan nga ci dara kooku kon ñaar la boole ko ak wàññi kooku xab la lay sujjoot kon ñu yemale fii ak yéen li nga xamante ni moo di jataay bi di leen jox dig daje ci jataay bii di ñëw ba tey ñu ànd ak yéen ci li nga xam ne mooy ki nga xam ne dafa fàtte dara wala mu yokk dara wala mu wàññi dara ci julli gi naka la koy indee ñu àggali leen ko ci jataay bii di ñëw incha allahu taala واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تيبي اتو صحنا يو باخ ني باج نيپلا نغي لي نيان